bisimila mbokku internet yi dal leen a jàmm gisuñu lakk-lakk te seeni ñu daay waaye nag sagara nga xëñ ci diggante ñaar ñi ki di Youssou Ndour ak Macky Sall na de di may na boog di ma mu mel ni man dama def lu ma yëgul li kenn yëgul kay mooy ñoom ñaar leen boole bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu jógee ko ci ñay jege ñaar ñii lu toll ci ñetti version maanaam ñetti mbir wax nañu ne bokk na ci li tax ki li di Youssou Ndour ak Macky Sall déggootuñu ñenn ñi jàpp nañ coowal troisième mandat bii moo leen féewale ndax li Macky Sall ak ñoñam di yoote ki di Youssou Ndour daf caa àndul ña ca des ne déedéet demeewul noonu li dox seen diggante ñoom ñaar kay mooy Macky dafa am lu mu diggoon Youssou Ndour ci poste daraja ci biir gouvernement bi ak yeneen te mujj ko def looloo tax Youssou Ndour dal ci kawam ah ñeneen fëlee fee ne du loolu wala bu dee loolu it bokk na ca itam ne Youssou Ndour daa rocceeku ci Macky ba set wecc yoot nara dem bokki feneen jàppale keneen ñeneen ci élection yi nga xamante ne moom la ñuy <laughs> xam naa ni daal Youssou Ndour ak i dañoo mer ba fu ndax jàpp nañ ne Macky mere gu mu mere Youssou Ndour moo tax mu dal ci seen kaw di digle ab audit ca Sodav ba nga xamante ne kii di Ngoné Ndour da foofu bi ci njëkk mooy la Macky Sall jublu ci audit bi ndax dafa bëgg a teg loxo jege ñaale Youssou Ndour yi ca des mooy kii li di Ngoné Ndour lu muy tiit pët pëti ak a yuuxu xanaa doxalinam ca biir Sodav daa seetlu mm-hmm. Macky Sall daal taxaw na o fañi fañ fañ fañ coo wàccaacaa waaye nag moytul ma Youssou Ndour cey bu la fentalee wëy fan la wànnit di mujjee ki gëtëm dan leen ko topp lu ci ruus ci xibaar dinañ ci dikkaat ak yéen